bëgg a tëddeg jabar taxul ngay sëy am na ñu nga xam ne ñu am nañu jabar te dañ koo am kese ndax li ko yàlla santaane waaye bu dul seen coobare dong duñ takk am na ay jigéen yoo xam ne am nañu jëkkër te li ko yàlla santaane dong nga tax waaye àgg nañ ci àdduna foo xam ne bu doon ñoom kese duñu sëyati waaye teewul ñu koy sëy ngir lan ngir la ko yàlla santaane kon tubaab yi ñoom bu ñu déggee benn jabar mbaa ñaar mbaa ñett rek seen xel ci li ñuy dem mooy tërub tërub lal ndax seen futi gu bon defe nañ ne sëy moom loolu dañ ko tax a jóg sëy dafa am ay bit yu ko tax a jóg wante bokk na ci liy wane ne dañuy fen xam ngoo xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi ñuy tuumaal naan dafa yor ay jabar yu bari yonent bi ci ñaata atam la am ay jabar yu bari ndax seet ndax xam ngeen ne yonent bi toog na ba am ñaar fukki at ak juróom amul fenn fu histoire mosa nettalee fu mu mosa amee ak ndaw benn yoon te su amoon histoire nettali ko su amoon bu ko Omar bëggee nëbb ak Abu Bakar Nadr ibnul Xaaris dana ko wax Abu Lahab dana ko wax yonent bi dund na ba mata am jabar am ñaar fukki at ak juróom musta am ak ndaw dafa takk soxna ku mu takk surtout naa Xadija ku ci magoon ñoom ñaar ah Xadija ndax ab jànq la woon ku besoin sexuel tax di wut ay jabar booy wut xanaa ci jànq ngay tàmbalee ko xanaa doo fekk ku la mag nga am ñaar fukki at ak juróom ma am ñeent fukki at ngay sëy moom te mellum Xadija moomu la yonent bi mos a yor ci Makka ba ni Xadija gaañoo ba ni Xadija gaañoo moom kese la yor te loolu mooy maanaam yonent bi sallallahu alayhi wa sallama dem na ba am ñeent fukki at ak ak ak nangam yor benn soxna teyit musta wut ak ndaw benn yoon moo kooku nuñ koy tuumaale rek ci jigéen moo kooku ko tuumaal tuuma ji foo ko teg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu rafete ak jikko noonu la rafete woon bind noonu la góore yoo woon jànq di ci Qurayshin ku ci Muhammad ne woon kaay ci yow ci yow la ci moom la yàgge waaye Muhammad ca fegu ga Muhammad ca laab ga Muhammad du siggi sax xool jigéen yor benn soxna ba am ñeent fukki at ak juróom wala juróom fukki at mu jóge Màkka ñëw Madina ay mbir gaar yu tax mu war a yor yeneen soxna ci ndigalal yàlla du ngir intérêt waaye ci ndigalal yàlla ak intérêt jullit ñi ak intérêt daaw bi bu fekkee ne bii dana bëgg a tuumaal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci ne sëyeeg jigéen ak yu mel noonu waaw kon yonent bi taxawaay bu leer naññ bi mu taxaw ci njaaloo du nee naa leen njaaloo dañu dañ ko war a bàyyi li ngi ma wax bi ma leen nee Sénégal am na ñuy njaaloo te ñu koy def dañ ko war a bàyyi am na ñuy wut ay coro bokk laa wax te ñu koy def dañ ko war a bàyyi li ngeen wax da ngeen a nangu ne dañ ko war a bàyyi wala da ngeen a war a wala da ngeen a gàntu dañ ko war a bàyyi war a bàyyi googu fu ngeen ko jëlee kon nag sayidna Muhammad ni nga koy tuumaale ci loolu yonent bi attitude bu leer naññ la jël ci njaaloo ci suratul isra mooy fukkeelu saar ak juróom-ñaar fanweereeri aaya ak ñaar mu ne wala taqrabu zina innahu kaana faaxishatan wa saa sabila mu ne bu leen jege njaaloo yonent bi daal jëllale njaaloo dafa bañ ku ko jege gaañ ñi ndax xam ngeen jege njaaloo mooy sa bët nga taggi ko ne ko tagg ci ñaari bëti jigéen seen bët ñeent te daal di woo àndale say bët soo ko defee jege nga njaaloo benn waykat a ko wax Ahmed Amin ne doomi njaaloo joo gis ci xool la tàmbale woon nawratun fa ibtisaamatun fa salaamun fa kalaamun fa mawcidun fa liqaau ndaw si da nga koy jëkk a xool boo ko xoolee mu xool la sa kanam ak ñàkk fayda ne ci kanamam ak ñàkk fayda ne ca kenn ku ne xam la ca morom ba ngeen waxtaan su ngeen waxtaanee joxante rendez-vous su ngeen joxante rendez-vous xay xam bu ngeen joxante rendez-vous daje te bu ngeen dajee xay xam doomi njaaloo joo gis ci xool la tàmbalee moo tax suñu borom yàlla wax ci alquran wax sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci suratu nuur muy ñaar fekki lu saa saar ak ñeent fanweeri aaya ak fanweer ak benn qul lil muminina yaguddu min absaarihim wa yaxfadu furujahum dalika azka lahum inna allaha xabirun bima yasnaun wa qul lil muminati yagdudna min absaarihin wa yaxfadna furujahun wala yubdina zinatahun yàllaay wax mu ne yonent bi waxal ma jullit ñu góor ñi ne leen nañu sëgal seen bët bu ñu xippi di xool ay jigéen seeni bët di ñeent di jàkkaarloo loolu buñ ko def teyit nañu garder seeni pëy bu ñu dem di njaaloo loolu moo gën a sell teyit nañu xam ne li ñuy def yàlla xam na ko teyit waxal ma jullit ñu jigéen ñi ne leen nañu lam nañu wàcce seen bët buñ dem di xool góor teyit nañu wattu seen pëy buñ dem di wut ay far teyitam buñ génn seen toilette bu ñu génn seen toilette xaw ma nag jigéen ñi daañu xool góor ñi xaw ma ndax daañu wattu seen pëy waaye toilette yi ba mu ngi ci mbedd bi balaa jënn jigéen toilette day waaj a génn sa jëkkër booy toog ci wetam la ngay yendoo gone yi rek nga koy toogale sooy dem marché wala ngay dem aw xew ngénte wala ceet mbaa gàmm wala màggal wala ziyaar daal di seet la gën a rafet ah te suñu borom yàlla ne wala yubdiina zinatahun waaye damay dellu si rek ci alquran ji ci sayyidina muhammad mi nga xam ne ku tënk woon tënk gu ma tëkk la ci li muy woote daawul xool jigéen mukk nan la ko nit nan la nit mën a bone nan la nit mën a ñemee engagement ay fen ak i nar bay wax ci yonent bi lu jëm ci loolu yonent bi dem na ba ne al aynaani taznayaani wa zinaahuma nawar yonent bi nee na ñaari bët daañu njaaloo seen njaaloo mooy xool bët dina njaaloo bët bu xoolee bët bët bu góor bu xoolee bët bu jigéen njaaloon kenn ci saxaaba yi ne ko waaw man su fekkee man damaa yëkkati sama bët rek mu tasanteeg bëti jigéen te jubluwu ma ko woon a xool nag yonent bi ne ko nga daal di teggi sa bët teg feneen isrif basaraka ngaa ñi borom jàngale yi sell yi appliqué application bu rafete nii Salman Rushdie mën naa yàqub dara dafay nuwul maanaam sax Salman Rushdie dafa muusul koy fen da ngay fen fen waxawa yeenu maanaam Salman Rushdie li mu wax ku ko dégg ba àggal foo jaar ci alquran xam ne Salman Rushdie day fen foo jëkk ubbi boo jàngee dem dégg li nga jàng xam ne Salman day fen xanaa danoo fàtte charte yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale ne colug jigéen na mel noonu charte ya juróom-ñett la bi ci njëkk mooy na muur yaram wi lépp yaramu jigéen dara waru cee fen ñuul kanam gi ak tenn benn te kooku xadis moo ci ñëw asma bintu abi bakr magi soxna si yonante bee woon sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw dugg ci néeg sitna aïcha fekk yonante baa ngi toog asma sol ay yére yu yaraax yonent bi dafa daal di dummóoyu gis ngeen maando ga de dafa daal di dummóoyu ndax lan bañ a gis yaramu asma kooku la Salman Rushdie di tuumaal tuuma si ku muy takk yonent bi dafa dumóoyu bañ koo xool ne ko asma jigéen su xase mat mukallaf su xase majeur su matee su matee gis baaxu jigéen du jaadooti moos dar ñuy gis dara ci yaram mu dul xar kanam gi ak tenq yi kon sart bu njëkk bi ci colk ak jigéen mooy na daj aw yaramam ñaareel ba mooy na fatt bu mu doon lu yaraax loo xam ne day doon ab ab lan ah xartuum wala waal wala mu nga da ngeen di dem ci usine yi liggéey fii Sénégal ngeen ne leen liggéey xartum dafa xaraam liggéeyu vaal dafa xaraam jaay ko dafa xaraam lépp loo xam ne jëfandikoo ko xaraam na jaay gi xaraam na liggéey gi xaraam kon sartu ñaareel bi mooy li ngay sol na fi na fiin na fat sartu ñetteel bi mooy bu mu seere ndax bu fattut wala fatt na waaye dafa seere di portrait ay place fitna ba tey yàgg ko solowul yéen a yem te yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na am na ñaari xeet ñoo xam ne am na ñaari xeet nit yoo xam ne ci sama xeet yu lañ bokk gisaguma leen ñenn ñaa ay nit ñu yor ay yar di ci fitnaal jullit ñi jullit bu waxul lu may rabbi allah jullit bu waxul lu may nañ ma atte ci alquran ak sunna ñu xas ko tànc ko tudde ko intégriste bi suñ ko mënee yóbbu tribunal yóbbu ko tribunal suñ ko mënee tëj tëj ko suñ ko mënee génn réew mi génn ko réew mi suñ ko mënul ñu ngi xalaat ni nga ko reyee ndax lan ab jullit laa nañ ma atte ci njullit ba léegi yéen a ngi nii kenn ci yéen ñu ngi ko wax kay fitnaal ay jullit ci kaw ak tooñ ay njiit yi fitnaal ay jullit ci kaw ak tooñ yonent bi nee na ñooñ ci waa safara lañ bokk te gisagu leen ñaareel ba ay jigéen ñu solu te rafle solu te rafle mooy nga sol loo xam ne du muur du muur liñ bëggoon muur ko bu dee voile nga sol wala xartum bu la nit séenee bëtam jàll mu xam si cin bi nga takk nu mel seen sa biir dëgg-dëgg loolu dug sol yàlla tax nag nga sol lu gàtt dégg naa bi ñuy défilé dafa amoon ay xale yu jigéen yu génn défilé sol lu gàtt dégg naa soxna Dieng ak Bachir Kounta bi ci waxante ci rajo bi Bachir Kounta naa ko lii yiwut lii yiwut tuuti tuuti na waaye xanaa moo tane soxna Dieng ma koy wax waaye nag nangam ak i nangam waaye jullit ña fa toogoon di ko seetaan te xam ne daa xaraam te jóguñu manifester ne lii neexul yàlla lu tax ay xale yu jigéen yu sol col gu gàtt mu yem ci seeni wóom ñu ànd ak ay góor ne dañuy défilé yonent bi nee na ci waa safara la ñu bokk kon sart bu njëkk bi mooy na sutura teeram lépp sartu ñaareel bi mooy na fii na fat bu mu yaraax ñetteel bi mooy bu mu xat seere ñeenteel bi mooy bu mu doon toilette moom ci boppam nga di ko génne waaw jigéen bu nekkee ci biir këram moog jëkkëram kese sañ na toilette daa war a toilette sax daa war a toilette tey xeeñ lu neex waaye nag su nit dee bëgg a ñëw wala moom muy bëgg a génn bu mu toilette kat bu mu sol loo xam ne bu moo xam ne toilette lay doon ne sol rek bu moo xam ne dina yem ñeenteel bi kon mooy bu mu toilette bu mu nekk toilette juróomeel bi mooy bu mu suuru wala mu laal parfum doore génn jigéen jii génn te fekk daa suuru wala mu laal parfum ma ngay def lu xaram yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li muy fonk fonk julli daf daan wax ne jigéen ju suuru bul julli si gee jigéen ju suuru bul julli si gee booba jul jigéen ñi dañuy dem jàkka ja waaw kay dem jàkka ja ndegam moom la ñuy tere mu suuru kay dem marché ba nag kay dem te xew a wala gàmm ga nag wala ngénte la mbaa ceet ga toilette génn alquran la ko wutal aw tur mooy at tabarruj mu tere ko juróom benneel ba mooy bu mu doon yëre yée bu mu nuru yëre yéefar bu mu nuru yëre yéefar juróom ñaareel bu mooy bu mu nuru yë bu mu doon yëre góor wala mu nuru ko defe naa juróom ñett boobu mooy juróom ñetteel bi kon li ma bëgg a wax daal mooy islam dafa indi ay melokaan yoo xam ne moo war a daje ci col ak jigéen melokaan yooyee islam bi mu koy santaane bi ko sayidna muhammad di wax moo lu taxoon sell ak bëgg dëkk bu sell ak société bu sell du dëgg kooku duñ koy tuumaale sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam xijaab boobu ay soxnaam dañ ko daan def te ñoom sax ñoo gënoon a mettile xanaa Salman Rushdie dafa jàngul dara dara dara dara ci taarixu Seydina Muhammad xanaa jàngul dara dara dara dara ci alquran ba xam ne kenn ci saxaaba yi su ma san bëgg a laaj soxna si yonent bi dara alquran daf ko ne ne kiiraay dox sa diggante ak moom wa ida saaltumuhunna mataan fasaluhunna min hijab bu ngeen kenn ci yéen jullit ñëwee di laaj ah ndab wala bagage kenn ci soxna yonent bi na ab rido wala dara dox seen diggante waaye bu ko gis mu la gis xanaa Salman Rushdie dafa jàngul dara ci isaaru sayidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xanaa Salman Rushdie yëgut ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam toog nag ñaari soxnaam Abdullah ibnu Ummi Maktum jóge ca di ñëw te xam ngeen ne Abdullah ibnu Ummi Maktum ak gumba la woon ba ko yonent bi seenee muy ñëw mu wax ñaari soxna yi ne leen dem leen ci biir néeg bi dem leen ci biir néeg bi ci seen biir xijaab ndax nit a ngi ñëw ñaari soxna yi ne ko yaa rasulallah kii gumba la du nu gis yonente bi ni leen afa am yaa waani antuma ndax yéen ñaar gumba ngeen ku sell nii soxna yu sell nii sang bu sell nii nan la ko Salman Rushdie di tuumaale ci fànn gii Salman Rushdie daa war na seet leneen lu mu tuumaale yonent bi fu jëmul fii ndax danoo fàtte ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ku njaaloo nañ ko dóor téeméeri yaat bu dee musta sëy bu dee mos naa sëy nañ ko rey te yéen ne ngeen àtte yooyu dafa soxal tubaab yi yàq nañu xoli jullit yi ba nga xam ne léegi boo nee sharia boo nee lislaam xel du dem ci jikko yu rafet yi muy indi ci société xel du dem ci bokkinu alal wu neex bi muy indi ci société xel du dem ci démocratie bi muy indi ci société ak liberté boo nee l'islam daal léegi li xel di dem mooy dagg loxo ak dagg bopp waaw xanaa yow nar a sàcc ah Sénégal day moom noo ngi nii mënunoo am dara bis bu nekk bitim réew sarax na bis bu nekk bitim réew lebal na banque yi fayit nañu société yi tëj nañu mu ngoog institution yu bare bare bare wàññi nañu seen i seen i employé kenn amatul fifteen lu génn ñu sàcc ko moo tax ñu ragal sharia ku bañ ku teen kay yaa xam la nga aj jigéen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax na ni su fekkoon ne bi am xerte ci vie sexuelle moo ko taxoon di am juróom-ñeenti jabar wallaay kon mu takk ay jànq yu bari ci bi muy gone waaye yor mag mu am ñeent fukki at mag la yow nga tolli sa ñaar fukki at ak juróom yorul yonent bi yorul lu ëpp benn jabar lu dul bu mu demee ba am lu ëpp ñeent fukki at ak nangam kero bi xadija gaañoo bañ teg cab diir jullit ñi gisee ne yonent bi daal war naa am soxna ndax ni muy xalaatee xadija mën a wàññiku tey war naa am soxna ndax njaboot yi fi xadija yi bàyyi am ku ko ku leen yor ndaw sa dafa naa xaw la wax jàppatuma tur na dafa naa xaw la la tudd sawda déedéet ndaw si ñëwoon ci moom di ko proposé ne ko da ngaa war a takk soxna xaw la la xaw la ñëw fekk yonent bi toog ne cel di xalaat mu ne ko yaa rasulallah da ngaa war a am soxna de yonent bi siggi xaw mel ne ko gëdd ne ko gannaaw gannaaw xadija ku may takkati yi la ko wax gannaaw xadija ku may takkati kooku xale mi ngi woon ci jigéen fekk na ndaw si préparé woon na lay wu jub mu ne ko yaa rasulallah góor gi la gën a bëgg ci nit ñi muy aboubacar di sab xarit bi la ñëpp weddee mu gëm la doomam ji aïcha takk ko jaar na yonent bi ci point de ferme yonent bi gis ne ba ba xalaat ayib mu ànd ci waaye xadija di waaye aïcha di xale bu tuuti ñu gis ne su ko yonent bi takkee indi ko Aïcha dafa soxla xale bu ndaw la dafa soxla sax moom ku ko yor ku ko uuf kon takk gu yonent bi takk Aïcha du dindi beneen problème bu fi nekk te mooy njaboot gi fi Xadija bàyyi gone yi mu fi bàyyi ku leen di uuf kenn ci jullit ñi xaw la moo wut benn xeer ni nga koy waxee jam ci ñaari picc loola mooy lan mooy ndaw suñuy wax sawdatu bintu zamaa di jullit di ku mage dem na ba xelam nekkatul ci sëy amoon na jëkkër waaye jëkkër ji gaañu na génn na xelam ci sëy ndax ñetti yëf bu jëkk bi mooy soxna sunu yaaya taxu ko woon a taaru yal na nu yàlla baal ñaareel bi mooy demoon na ba nekk mag ñetteel bi mooy ab jullit la te jullit ñi bari wuñu ci makka te ab jullit bu jigéen sharia dafa tere mu sëyeeku bi yéefar te booba sax tere guñ ko waaye yéefar yi ñooy bañ boo xasee bokk ci Muhammad kay moom dañ lay boykote sawda fu muy jaar ba am borom kër sawda soxlaatu ko xalaatatu ko xaw la ne yonent bi soo jëloon sawdatu bintu zamaa mu ñëw ci sa kër yor sa njaboot yi yonent bi ku bëgg diisoo la woon ku fonk nit la woon gis ngeen jigéen rôle yi muy joué ci islam waaye jigéen ñi ne yàcc yàccaaral ay yeewu yeewu di leen fontoo di leen sóob ci yoonu naari jahannama lu ñu wax rek ñu tàccu jigéen day xam waru garam te ne ca gis ngeen xaw la ni mu taxawoo yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw na ko ba mu am jabar ju nga xam ne ji xëy na mu mën koo fàtteloo misère mi misère Xadija mu des nag mu am jabar ju nga xam ne ji dana mën a téye njaboot yi mu wax ko yonent bi yonent bi juboo ceeg moom mu dem mu dem ca baayu xaw la baayu sawda kon baayu sawda ngi dund booba waaye ab yéefar la de ab yéefar la mu dem na ko xaw la soxna si moo dem na baayu sawda sawda mii day dama ko doon yonent bi da ko bëgg soxna góor gi daa tëddoon waaye dane bërét toog néewul ab yonent la de ne dane Muhammad day ab nawle la ku baax la ku rafet jikko la waaw gëmu ko nekkul ci diineem waaye teewul bu wax jikko yu rafetee wax maandu ga wax njub ga wax sell ga ne kooku def nawle la kooku def bu ñaanee saw dañu war ko ko may ne ko na fi ñëw mu dem ca sawda xaw la dem ca soxna si dem ca sawda xaw la dem ca sawda ne ko sawdatu bintu zama yow la yàlla indi ci xéewal moom nu mu dayeeg su mu jógee mu ne ko loolu lan la mu ne ko rasulullahi def la soxna mu ne ko ah wallaay amatuma soxla ci góor wallaay amatuma soxla ci góor waaye nag teraanga ci toll na yonent bi yor ma na bokk ci ay soxnaam ñu ma ci askan loolu moom jaral na ma adduna bi ci biiram kon relation sexuelle yóbbuwul sawda ci kër yonent bi sallallahu alayhi wa sallam déedéet loolu mooy sabab bi tax mu gaaw a may ak ak ayam ak moomeem gaaw na ko misi sitna Aïcha lool mu dem bi yonent bi ñëwee Madina ay jigéenam daje di tawat ne seenu dund dafa ñagas da ngeen li sunu yaay Aïcha nettali woon sànq nee na daanañu toog ñaari weer kenn du taal cin ci kër gi waa lu ñuy lekk ay ñam yu sew da ngeen li Omar wax Omar nee na buuru Kisra ak buuru Ruum ñoo ngay yor ay xéewal di lekk ay yàpp ak fur wi ay dex di daw ci seen ron yow yonent yàlla bi sa magasin bi mel nii yoroo dara jigéen ñi jóg ñëw di kaat jigéen ñi ñëw ñu ne dañoo bëgg ku leen defaral seen situation wu dund ni ñuy dunda metti na yonent bi buur la li buur yi man man na ko li ñu am am na ko da leen koo joxut te wax nañu dëgg da leen koo joxut waaye da koo jox jaam yàlla yi loro yonent bi lu ma sa ñëw ci loxoom mu joxe mos naa am gannaaw bu ñu xeexee ba noppi ba gañe ci ci ay xar ak i gëléem ak i ganaim lu bari aw xuru fees dell ki gàtt juif bu ko abaloon ay ngannaay ak juif ni mu bëggee alal noonu naka mu gis alal ji rek xel ñu dem mu ne ngàmm nga maaral mel na ku fi nekkatu ndax lan cee tët tët cay yi xar yu bari cay yi gëlëm yu bari cay lii cay lii bu ma ci amoon su ma ci amoon ñett mbaa ñeent lay wax ci mi xelam yonent bi xool ko xam li muy xoolee yëf yi yonent bi xam li mu ko wax dafa ne da ngaa bëgg lee mu ne ko waaw waaw bu ne ko fabal fabal la ko wax lépp xam ngeen ne yonent bi su bëggoon a noos am na lu mu noos am na lu mu jox ay soxnaam am na or bu mu leen jox soxna yi léegi dajaloo nañu nee nañu dañoo bëgg ci or bi dañoo bëgg ci soie bi dañoo bëgg ñu deen reyal xar ak ñuy lekk yàpp dund bi naqari na ndax yonent bi wuyu na leen déedéet yonent bi dafa gàntu ba mbir mi indi muskile indi problème seen digganteeg moom ba la ca mujj mooy lan la ca mujj mooy alquran moo ñëw suñu borom yàlla moo def intervention te maa ngi leen di xamal ni te loolu mooy li réer Salman Rushdie waaye Salman Rushdie fàtte woon naa ne moom am xar la am xar a ko gën am xar gëm na sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak tille ko gën tille gaane woon Muhammad da ngay wax li xibaar yi weesu woon aw doja ko tane doj wi xam na rasulallah bu mu ko romb na ko assalaamu alayka ya rasulallah Salman Rushdie yées ci li yàlla sàkk iblis dong laa ko mën a nendaleen waaye kon li réer iblis moom li Salman Rushdie moo di ne vie conjugale sayyidina Muhammad sayyidina Muhammad yuru ko woon ci loxoom déedéet sallallahu alayhi wa sallam yàllaa ko yoraloon boppam di ko diriger te loolu la liggéey bi laajoon liggéeyu sayyidina Muhammad station fonction bi mu am en tant que guide universel moo laajoon loolu moo tax ba vie conjugale am yàllaa ko yoraloon boppam di ko diriger bàyyiwu ko moom bàyyiwu ko keneen moo tax ba nga xamee ni bii yonent bi jàppante nag ay jabaram ba yonent bi beru leen lu mat weer ba waa madinaan waa madina di wax naan yonent bi ndax dafa fas soxnaan yi jigéen ñi jàpp fi ñu jàpp rek ne leen yonent bi dafa ren seen seen dund alquran dafa wàcc sans